ministre bu bu humble nga bu jege askanu Sénégal bu loolu soo may wax ne monsieur le président mu Moustapha Niass juumul ba la tànnee si ay cadre am boole la président Macky Sall pour nga gunge ko ci li nga xam ne mooy li mu teg muy plan Sénégal émergent ndax boobu ba tey fépp fu ñu la teg ay résultats nga fa def loolu wane sa xarañ sa taxawaay sa bëggu liggéey ak tamit li nga xam ne moom nga mënee. Monsieur le ministre, président Daphné, il nous faut une compagnie aérienne à la hauteur de nos ambitions. Nous euh, ne ko mën nous nekk nous ñu ne nous ndax daf fi indi li nga Nous euh, transport ci suuf Nous mu indi indi terre defar autoroute indi pont yi transport maritime indi bateau ak ak ak indi indi port def ndaayaan naaxu nga sendu kon tey bu ne ci wàllum jaww ji it da ciy def ba mu baax dañ koy gëm rawatina démb mu indi fi li nga xam ne mooy Airbus boobu nga xam ne tey ñu tuddee ko Sine Saalum ñu am ci certe bu rëy nag ñun doomu Saalum yi euh, muy doomu Fatick yi doomu Kaolack yi ak doomu Kaffrine yi euh, monsieur le ministre ginnaaw bu ma rafetloo loolu dama rafetlu également li nga xam ne moo ngeen di liggéey ci wàllum aéroport yi di ko yeesalaat gis nañu ni nga yeesalaat bu Saint-Louis bu Ziguinchor bu Tamba bu Matam bu Kédougou ak bi nga xamne mu ci Ourossogui gi di rafetlu également li nga xamne mo sa objectif am 3 millions de touristes fii ak 2023 te mën na nekk ndax wane nga sa xarañ ak tamit li nga xamne moy dinañ jóge ci 5 millions de passagers fii ak 2023 yegg ci fukk millions passagers fii ak 2035 monsieur le ministre ñu rafetlu financement yi nga jox yi nga xamne ne hôtel yi la di len jappalé pour ñu mën gëna gën liggéey. monsieur le ministre bu loolu weesoo eh, Mariama Ndiaye wax na ko honorable député dañu ànd maag moom du tukki yàlla def mu am benn handicap bu ko dal bu ko dab da ko dab sax bu ñu demee ci aéroport day am problème ndax dëgg la assemblée nationale dañ ko jox assistance bi wax waaye dafay yéex bu ñu fa yeggee loolu tamit bëgg nañ ngeen teg ci ay jéego monsieur le ministre Kaolack aérodrome bi dëgg la ñu ngi ñu ngi def réhabilitation bi waaye ma li sa document nga ne dina am offre ca banlieue qui bi euh, site baleine, balnéaire bi ak tamit fii ci île de Gorée Kaolack également war na mën a tamit bénéfice ñu prendre ko en compte monsieur le ministre si stratégie boobu nga xam ne moom nga teg bu développement du secteur car ñun amit ñun tamit am nañ site yoo xam dañ koy valoriser monsieur le ministre monsieur le ministre euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo la ñoo agence de voyage yi am lu ñu ma yóbbanti yu mel taxe aéroportuaire en particulier HP nee nañ dafa dafa dafa élevé ñu wax tamit ne concurrence agence de voyage yi ak les les ñi nga xam ne ñooy yox euh, agence étrangère yi ñu mel ne indien yi nee na ñoom tamit vraiment sonal nañ leen monsieur le ministre tamit nee nañu Cap Skirring amul vol direct alors que avant amoon na li nga xam ne mooy vol buy dem ba foofu noonu ñu bugg tamit monsieur le ministre nee nañu nga promouvoir tourisme bi sénégalais bi comme ni ko Maroc di defee mu toll ni Maroc fu mu toll ak fi nga xam ne mooy Brésil monsieur le ministre ma jógee Kaolack nga xamné ne Kaolack yaakaar naa ne mbalit bëri na fa té ku wax tourisme dafa war and ak set ak sel tey jii ma bëgg xam yeen jéego nga war bëgg xalaata a and ko ki nga xamné moy ministre de l'environnement ngeen lekkolo trouver solution bo xamé tay dina tax loolu nga xamné moy mooy mbalit ca Kaolack mu jeex fa tàkk ba nga xamné tay kenn ku ci nekk dina bëgg dem noppaloo fi nga xam ne mooy Kaolack nangaan